Je me présente, je m'appelle Massamba Diouf, je suis spécialiste protection de l'enfant au bureau pays de l'UNICEF. waaw liggéey bi bi ñu ko tàmbaleeg léegi mi ngi mi ngi mi ngi ci année 2019 bi parce que dañoo gisoon ni taux déclaration des enfants de moins de 5 ans région Diourbel dafa commencé wàcc contrairement ak d' autres régions yoo xam ne ñoom seen bos mi ngi yokk léegi dañu ne ci saafara yi nga xam ni war nañ cee mën jaar pour mën a faj jafe bi mooy lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ndax ñooñu ñooy joxe. certificat d'accouchement maanaam femme bi bu muccee ci structure sanitaire ñoo koy jox te aussi certificat d'accouchement boobu moom la la officier wala agent d'état civil njëkk a laaj boo war a déclarer sa doom donc yoon la woon ñooñu ñu mën a mën a waxtaan ak ñoom pour mën a gën a gën seen taxawaay ci wàllu déclaration état civil ñoom war nañ mën di déclarer ni ko yoon waxee mais aussi war nañ mën aussi gunge njaboot yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ak ñoom en contact pour ñaax leen ñuy mën a déclarer seen doom ak wax leen également fi ñu war mën a jaar pour déclarer seen doom donc liggéey boobu dañ ko tàmbali ci yeneen gox ñu gis vraiment résultat yi am solo ñu leen nag léegi dañ ko indiwaat waxtaan ceeg ñoom xool yan taxawaay la acteur de la santé di am ñoom tamit pour gunge famille pour gunge communauté pour gunge également centre état civil pour que xale yi bépp bépp xale bu juddoo ci structure sanitaire wala moo xam ci këram ñu mën ko déclarer euh, dans les délais waaw foofu tamit ñu bëri duñ ko bàyyi xel mais chef de village ak délégué de quartier ñoom aussi war na am taxawaay bu ñuy war a bu ñu war a taxawoo ci lu jëm ci wàllu déclaration naissance ak wàllum déclaration décès benn bi mooy xale bi bu toogee weer te ay waajuram déclaré wuñu ko moom fukki fan ak juróom yi ci topp moom en tant que auxiliaire d'état civil war na mën a déclarer xale boobu te bu ko defu tamit yoon prévoir na ay sanctions yi nga xam ne mën na fay euh, ñeenti téeméer ba euh, junni pour. Euh, nga xam ne bu déclaré wul xale bi mais pour ñun du sanction bi moo am solo li am solo mooy fexe ba ñoom ñi nga xam ne ñoom la yoon cëral loolu ñu mën ko taxawee xëy na peut-être quelque part bu parent bi sàgganee ñoom war nañu mën a am taxawaay boo xam ni fe fexe ba xale boobu juddu ci seen quartier wala seen village ñu mën ko déclarer ndax amul leen lu leen umpa ci gox bi donc ba tax ñoom aussi am na taxawaay am na am na liggéey bu am solo bu CDP bi ñoom fexe ba former leen war leen également ñu a mën seen cahier de village également leen ay cahier de village et de ñu bana am parfois dinañ ko bëgg a def mais xëy na kay bi leen maire bi joxoon fees na ba mënatuñu am fu ñu koy jëlee donc liggéey bi aussi ñoom aussi dañ leen ci boole nga xam ni bu xale bi juddoo ci quartier bi ñoom dañu mën taxaw mais également xale bi judd ci service sanitaire bi agent de santé wala sage femme bi wala médecin bi dina mën a ñaaxaat njaboot euh, famille bi ñu mën a déclarer seen doom waa xale yi ñuy for tamit ñooñu tam dañ leen war a déclarer donc euh, yoon yoon li mu wax mooy képp ku for xale moo xam su buntu kër la moo xam ci mbedd la moo xam fu mu mënti doon mën nga ko déclarer mais dangay dem présenté wu ci officier état civil bi ne ko diw dama ko for wax circonstance ya nga ko foree mais moom itam du tëb tëb rek déclarer xale bi day foog mu foog mu foog mu waxtaan ak président tribunal d'instance bi nga xam ni moom fa la fa la fa la bokk kooku jox ko ndogal mu tànnal xale bi tur tànnal ko sant ñu déclaré ko ci registre anne bi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ foree xale bi je pense que loolu tamit day day day tax nit ñi xam rek xale bu juddu ci ndeyam bu juddu ci mariage rek la ñu war a déclaré mais xale boo xam ne aussi dañ ko for xale boo xam ni papam bañ na ko reconnaître dañ ko war a déclaré xale boo xam ne également euh, yaayam dañ ko tooñ mu juddu tamit war nañ ko déclaré donc cas yëpp gars yi génnee nañ ko ci formation bi pour que ñu xam ne xale bépp bu juddoo rek quelle que soit ko may chance également mu doon citoyen bu am solo ci réew